seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam wasalaatu wasalaam ala mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di am contentement lool di bég lool ci seen teewaay fii di leen ñaan rek ci teewlu ma jàng suma discours ci nasaraan mën a dellusiwaat ci olof bi gërëm leen sant leen kon ginnaaw bi ma gërëmee suma ñaari wayjur di leen ñaanal yàlla yàlla xare leen àjjana woyofal suuf seen kaw maa ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñëpp di wax asalaamualeykum chers invités asalaamualeykum chers notables camarades frères et sœurs sans oublier la jeunesse fer de lance de notre société. C'est avec un réel plaisir que je vous reçois ici chez moi, à la parcelle 1443 de Feu Mon Père, à Moyogodra. Je vous remercie d'avoir bien voulu marquer votre présence en cette cérémonie pendant laquelle je compte me prononcer officiellement sur ma candidature pour les prochaines élections locales qui profitent à l'horizon. En tant qu'acteur et responsable politique de l'Alliance pour la République et membre du Benno Bokk Yakaar, je voudrais également me prononcer très clairement sur mon choix, le choix que j'aurais à porter et ma position que j'aurais à adopter au cas où je ne serai pas plébiscité par rapport aux élections locales qui doivent avoir lieu en janvier 2022. Chers invités, compte tenu de la déclaration de son, de, du secrétaire général de mon parti de l'Alliance pour la République, je veux nommer son Excellence Macky Sall, qui a dit, je le cite, si vous le temps de patienter, unissez vos forces, travaillez et élargir les rangs Et au moment venu, je vous ferai de bons choix et nous allons gagner comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Certes, Excellent, ces propos sont d'autant plus vrais que tout le monde devait s'en tenir. Mais hélas, et dès lors que nous avons constaté quelques bon nombre de nos camarades se sont prononcés, on se voit donc obligé de faire notre déclaration de candidature. Par conséquent, Excellent. Excellence, en tant que responsable légitime, je déclare officiellement ma candidature à la candidature de la mairie de Pikine Nord. Mais, je dis mais et je le répète. Par contre, Excellence, au moment où le choix vous est venu et que je ne sois pas plébiscité, j'aurais bien voulu guidez votre regard, Excellence, vers un homme qui a ravi et qui continue de ravir la vedette à tous les politiciens et aspirants de notre commune Pikine Nord, voire le département. Et pour preuve, Excellence, vous avez même eu à l'inviter parmi vous, parmi nous, l'Alliance pour la République, et à le recevoir au palais pour magnifier son courage, ses qualités et son sens élevé du partage. je veux nommer le maire Amadou Diarra. S'il est désigné, demain je dis bien, s'il est désigné tête de liste, je compte soutenir résolument à bien mener ses projets à côté de lui. Et toute, la, et toute nouvelle mission qui lui sera confiée. Car, n'eût été l'ignorance je veux dire monsieur le maire sortant Amadou Diarra nul n'est censé ignorer je veux dire a émis son souhait de briguer un autre mandat qui lui permettra de hisser très haut la barre après qu'il eut à faire un bilan aussi élogieux élogieux qui lui est valu d'être nommé je veux dire monsieur le maire champion en éducation maire champion en santé maire champion de la jeunesse et du sport maire champion en exclusion, maire modèle sur la gestion de la Covid et de la résilience. Son expérience, son expertise en matière de décentralisation, mais surtout son sens élevé du social, lui a permis de bénéficier de la confiance de son Excellence Macky Sall, qui a eu à l'inviter solennellement avec ses frères et partis et ceux de la coalition Benno Bokar à travailler la main dans la main et à l'union des cœurs. Donc, pour une victoire éclatante au soir du, du 23 janvier 2003. Je m'en arrête là et je vous remercie de votre aimable attention. Bon mbooloo mi maa ngi leen di gërëm kenn ku ci nekk ci turam ak santam li ma bind ci kayit gi nag su ma ko doon tënk ci olof damay wax ni ginaaw bu mu leen gërëmee sant leen maa ngi leen di masawu coono ci bi ngeen tàmbalee yitte yi boobu ba léegi. jóge fu sori sama collègue délégué yi teew du cadre militaire sama mbokki bopp ñi ma dëkkal soxna yi xale yi ñoom ñëpp képp ku ma tuddul turam rek te may àddu nga may ngay teewlu maa ngi lay gërëm di la sant ci sa teewaay di leen wax ni nag dafa mënul woon a ñàkk ndax ni ko sama naatagoo yi defee rek laa ko defee mooy dañoo def seen déclaration man it ma def sama déclaration li tax naa ma koy def mooy dafa fekk ni dafa am lool damay faral ñaareel di ko gànnaayoo dafa neex lool nga ne da euh, candidat la waaye candidat day fekk nga am dayoo war a mën a nekk candidat man nag yàlla dafa dogal comme ni ko CC waxee léegi le chef du cabinet du maire dama ànd ak Macky Sall depuis 2009 ca njëlbeen am lii nga xamante ni moom laa téye sama loxo mooy le cutis bu ma mën a ndamoo ni tey lii mooy fidèle sama ànd ak Macky Sall depuis 2009 ma monté sama comité fii ci sama biir commune ànd ak moom boobu ak léegi muy metti muy neex ñuy xaarandi ba tey ji tey bon bu ñu taxawee ba war a jëm ci élection jaadu na képp ku yëkkati loo xam ne bëgg naa man tam ma yëkkati sama loxo ni bëgg naa waaye nag ci biir loolu dama ciy sooraale samay nattangoo ak samay nawle ndax Amadou Diarra mi ngeen fi tudd nawle la ci man te nit du la jox lépp nga jël lépp te dafa am loo xamante ni ngor dafa faa war a bàyyi dañu ànd mu nekk PDS man ma nekk APR ñuy dem ba jibi jamono ñoom ñëpp ñëw fekk si fekk si bi nag dafa fekk ni Macky Sall moo ko xool ci biir tànneef xam ni jàmbaar la xam ni ku mën politique la xam ni ku yaatu la xam ku am social la mu xëcc ko suñu biir boole ko ngir yokk doole famille bu yaatu boo xam ne ci Pikine Nord mën naa ne les deux grandes forces vives politiques ñoom ñoo daje tey muy la coalition de Amadou Diarra fekk si la coalition Benno Bokk Yaakaar mu benn jamono. bu ñu ànd yàlla bu ko seytaane rax di ñaan lépp luñ ci mébét ci lu baax yàlla dafa ñu ko wax ni sama déclaration boobu bis bi yàlla dogalee ci tànneef yi ñu tànn ma xëy na la yàlla dogal. te am naa yaakaar population bi dinañ ànd ak man ci mën liggéey ba mën a jël maire bi su yàlla dogaleeg leneen mu gën lu gën ci keneen man sama yéene gannaaw sama jëmm ji ci Amadou Diarra la jëm loolu moo waral tey ma defal ko benn banderole boo xamante ni en guise de symbole buy mën a magnifier sama diggante ak moom ak sama wóolare ak moom ndax ni mu def sama njaboot xam naa ko ni ma ànd ak sama njaboot xam nañ ko bon maa ngi koy ñaanal moom it li bëgg yàlla na ko yàlla defal defal ko mboolem jullit ak ñi mu àndal ñëpp ñi mu àndal muy ay politiciens ñi mu àndal muy góor di jigéen ñoom ñëpp ay jàmbaar fàq tëdd lañu ma xam leen madame le maire à travers madame le maire ah bokkum nga jàllal ma sama nuyoo ci jigéenu Amadou Diarra yëpp la jeunesse manjaa nga jàllal ma ko comme maam Awa Sarr jàllal ma sama nuyoo ak sama ngërëm ci ñoom te xam ni léegi tey benn famille lañu la mu waxoon ca palais ba rek ne Macky Sall doxal maa ngi sa ginnaaw ku la laal maa ngi sa ginnaaw loolu laa koy bi tey pour won ko ni Macky Sall gannaaw moom Amadou Diarra moo ko wax loolu man dinaa ko wax ne Amadou Diarra doxal maa ngi sa ginnaaw bon nag tey kër gi benn la nañu yéenante jàmm àndandoo def nga do nekk benn fas yéene jëli suñu commune dégg mën a liggéey doon benn bon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wax ji bu ëppee suñuy naattango yoo xam ne ñoo ngi ànd ak ñoom te suñuy nawle lañu ñu respecté leen lool waaye ñu bëggoon indi leen un petit rectificatif par rapport ci loo xam dañu dañ koo jëf ma profité ci occasion bi pour interpeller mooy les alliés yi nga xam ne nekk ci benn Bokk Yaakaar bërki dée ma dañoo daje ne dañoo tànn seen candidat am nañ ci droit waaye tànneef ba dafa répondrul ak ak une certaine cohérence ndax ku dem département daje la ay responsable ne ab Ablaye Timbo moom mooy suñu maire ku ñu tànn muy candidat loolu nangu nañ ci ñun ñi sa à la base nangu nañu loolu d'accord nañ ci loolu ndax Ablaye Timbo kenn ku ne xam ne ci ñun la bokk te moo um njaboot yëpp waaye soo defee loolu ba pare da nga war a wëlbati ko à la base ñëw ci commune ba fekkaat fa maire boo xamante ni moom it APR la kon bu fekkee li ngay wax dëgg la ci yow da nga war a ñëwaat réitéré boobu boobu yéene ci moom ñëw ne moom maire bi aussi nañ ko jox li nga xamante ni moom mooy suñu baat waaye dañoo mujj beru seeti kenn koo xamante ni kenn xamul jamono bi nga xamante ni daanaka bàyyiwul na politique ñu ne kooku mooy seen candidat loolu nag du rafetal ànd bu bëgg nag loolu ñu teel koo rectifier te xam ni nit boo amee yéene ca kaw département loolu dafa war a wàcc rogalaan ba ci base bi loolu laa amoon di ko ci teg ak di soñ si yeneen naattango yoo xamante nii ah jàlloon nañ ay kàddu ba di ñu wax ni Amadou Diarra mi dikk fekk si benn bokk yaakaar fekk na ñoo xamante ñu dañoo sëyi woon ba tas dellusiwaat ci kër gi loolu nag tontu mën na ci am waaye dafay mën a ñàkk ndax famille bi benn la di gërëm ñëpp di sant ñëpp kàddu yi nag lu ci dëgg ngeen xam ni wax dëgg yàlla ah maa ngi koy jégalu bu baax mais lu ci jub rek yàlla am di gërëm ñëpp di sant ñëpp allahuma salli ala sayyidina muhammad